jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen ngi topp 24actu point com am nañu mbégte àndaat ak yéen ci l'invité de la rédaction ñu fas yéene kee ànd ak yéen di ci dalal ay nit ñoo xam ne ñu wuute lañu euh, nekkee euh, file ngir waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne rek ci la ñuy yëngu rawatina nag li nga xam ne euh, moom moo soxal askan bi tey ji nag am na nu mbégte lool dalal daam Diané nekk ndaw boo xam ne ràññee nañ ko lool ci fànn gi nga xam ne rek ci lay yëngu ak yu ni mel dinañ ci dugg ak moom maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoog ñi lay topp ci 24actu point com waaleykum salaam wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci 24 actu yi sëñ bi ñu ngi lay fay nuyoo di la bu baax di ziyaare mboolem waa kër gi di am mbégte bu baax yaatal gi nga ñu yaatal ci jataay bi ngir ñu mën fee wecc ay xalaat rawatina ci fànn gi nga xam ne moom la ñu yéen muy taalif mhm. am na solo ci euh, nuyo bu am solo boobu ñu ngi lay euh, jaajëfal euh, daam xam ni day jafe na xëy na bu ñu bëggoon xam sa parcours ci wàllu googu lan nga nuy wax d'abord waaw daam jaane mi ngi juddoo Tëngéej fi laa nekk ba mm, mata dem daara ñu indi ma Touba ma jàng si woon fii diir bu gàtt nag laa fi def sëriñ bi ma doon jàngal ñu ànd ak moom dem ca àll ba fa ñuy wax euh, Daaru Salaam coon ndax ci wetu Maodo Mouride fa sa foofu nag def naa fa diir bu yàgg lool fa laa jàngee mbay jàng fa yeneen mbir yi ginnaaw loolu nag maa ngi yeggale sama njàngum alxuraan dëkk bu ñuy wax njaañ ca wetu kokki sëñ xaadim Gueye moom mu ngi fi doon dégg ci ginnaaw mooy ci moom laa tare alxuraan ci loo xam laa bindee ñaari kaamil fa laa tàmbalee jàng nga alxuraan ba wàcc ah? waaw jàng naa alxuraan ba mokkal ba bind ñaari kaamil aussi jàngalekatu alxuraan laa tamit xëy na taalif bi moom passion la rek waaw atum 2008 nag ci laa ñibbisi di continuer di jàng xam-xam fii ci Touba di yënguwaale ci taalif voilà mën nañ ci euh, dugg directement lan moo la dugal euh, ci euh, taalif waa taalif moom dañuy wax ne day wàlle dañoo dëkkoon ak dong yu mag yoo xam ne sii dañ doon taalif ñenn ñi di jàng taalif yi mag ñu njëkk ña ñu mel ni sëñ Moussa Ka ak ñoom sañ Mbay Jaxate ak ñeneen ñi des loolu fan la woon foofu njaañ ah, njaañ mhm. loolu nag ci lañu guub bi duggee ñu di ko jéemantu di leen toppandoo bi ñibbisee Touba nag Touba milieu taalif la ñi ñu suñu maas gi ñu am relation ak ñoom ñuy def ay jotaayu taalif ak émission yi nga xam ne sii ñoom la ñuy amal ci rajo yi surtout Lamp Fall ak yeneen rajo yi ci des yëpp ñu loolu nag yokk ko ñu gën koo suuxat ci ñun mhm. waaw est-ce que yaa ngi fàttaliku sa ay première vers ci taalif sa bëy du njëkk comme ni ngeen koy waxee yéen <laughs> bëy du njëkk ci taalif maa ngi koy fàttaliku jamonoy diggante su Bush la woon ak euh, Saddam Hussein <laughs> waaw loo ci waxoon dama copier woon rek àddina ndax day bëgg jeex am gaa yi baax yi bëgg jeex Palestine ak fu ne di xeex nit ñi di faatu rek di dem waa Amérique ak Angleterre jàpp Iraq rek di dóor jaay leen doole jël seen góor def seen i pexe ba jàpp sa Saddam mm-hmm. jël seen i nit fal ko fa buur muy rey jigéen di reyu góor bu téeméer dee ñooy diise moo tanaa gaa yi kenn du ko xam loolu nag moo nekk taalif bi nga xam ne moo gën a no marqué ñi nga xam ne si ñoom la ñu àndaloon la ñu maaseloon di ko ngir ñëw poussé. danga nga ci amoon référence koo xam ne da ci doon yëngu mu neex la wala. waaw am na koo xam ne si moo doon jógee njaareem di ñëw di taalif ci ñun ñu koy wax Galas Ndiaye soriwul fii léegi <laughs> professeur informatique la te ab donga daara la. kooku moom moom moo nekkoon sama référence moo ma ci dugal waaye boo demee tuuti da ngay gis ñeneen ñoo xam ne sii xëy na ñoo ko gën a aay ndax moom itam xëy na danga koo xam waaye ci jàng la toll mu mel ni euh, taarif boobu am na ay euh, sart euh, nekkul ne Alaaji Ousseynou peut-être day ñëw rek dajale ay baatam jàllale ko noonu. waa am na ay sart d'abord da ngay jubloo taalif su fekkente ne da ngaa tëb tëb bëgg a tuddee jubloo taalif. da ngay am yéeneew taalif. bu fekkante ne da ngaa tëb rek wax mu tolloo ak aw bayit te jubluwoo woon mu nekk aw bayit du doon taalif. wax rek lay doon. wax rek lay doon rek lay doon. ok da ngay am jubluwaayu taalif. ba noppi mu tegu ci benn ci baxaru yi. baxru yi mooy. Euh, mooy ay diggante lee. mooy euh, faayilu nag wala mooy faayilu nag faayilu nag. ma ah, faayilu nag donc yooyu ci la ñuy peesee ci la ñuy peesee mhm. boo xoolee xasida yi da ngay gis xasida goo xam ne si sëriñ bi mi ngi ko tëggee baxru tawil yi mu tëggee ko baxru basit yi mu tëggee ko baxru rajas yi mu tëggee tëggee ko xafiif noonu lañu amee ba mu toll ak fukk ak juróom benn fukki juróom fukki ak juróom benn baxru yoo xam ne si ci la ñuy tëgg bu génnee yooyu rek xëy na yaa koy fent mu doon bu bees ah ok bu weesoo yi fi nekk yow mën nga fent baxaru bu bees. waaw am na ñoo xam ne si fent nañ ay baxaru ci misaal ñu jël taasu yoo xam ne si mag ñi ñoo ko doon taasu senegal yi ñoo ko daan taasu yu njëkk nga tëgg ko ci sa xelum bopp mu tolloo ak ay tafin la tafin la moom diggante foxoolun la ak mafaanilun da dangay jël fee benn jël fee benn rek boole ko ak mbége Samba Ndiaye mbége dërëm mu daal lay jox dara waaw kon kon taalif mel na ni laaj na euh, dégg olof laaj na tamit inspiration tamit nga am ko waaw laaj na dégg olof laaj na inspiration ndaxte dañuy wax ne dafa yell ci kii taalif mu xereñ a làkk wa muy taalifee mm-hmm. loolu la bu dee arab ngay taalif faw nga xereñ a làkku arab ci naxwu ba ci arud ci sarf ba ci yeneen ya aju ca làkk yëpp kon boo dee taalif ci wolof yey na nga dégg làkk yu baax xam soppanteku baat yi mm-hmm. waaw soppax ndikoo baat ñuy soppax nan la ñuy sant yooyu yëpp danga koy xereñe mhm. comme xaw nga dégg làkk wi mhm. d' abord ngeen bu dee fii ni ngeen def ba dégg ko parce que fii nii olof bi euh, des na léeg-léeg mhm. ci tàmbali bi maa ngi doon wax ngi yaroo dëkk bu ñuy wax daaru salaam condax foofa fa sori la beneen bi ci des boo jàngee ci majaalis baat yi buñ la koy firil ci wolof wolof yu xóot lan la koy firil da nga am danga ah. am boo noppee tamit yaa ngi dugg ci taalif faaw lépp lu mu laaj nga di ko gëstu di tàmmal sa bopp ay boo dee way di jël ay waat yu yàgg mooy tax li ngay def aare kon loolu moo lay poussé ci nga dégg ko mooy boo nekkee ci métier rek faaw da am bis bi seen ngay yokk sa expérience ok est-ce que léeg-léeg di ngay dégg taarif benn taarif rek nga ne kii de mën taarifam bi vraiment euh, damm na baat yi est-ce que dina ci am parfois waaw dana ci am waaye léeg-léeg dana ci néew bu fekkente ne ñi nga xam ne ay mubtadi mi ñuy doog a door xëy na léeg-léeg ñu way am ay rëq-rëq comme way yu ma doon wax léegi nga xam ne moom laay doon mooy doon sama première taalif ay taalif yu jëkk ya bari na ay damm-damm boo ko doon yëraat tey mm-hmm. kon xëy na ki toll fa nga tolloon bay damm ay ay baxru kooku bu fi tollee mën naa mën na def waaye danga nga koy comprendre rek di ko xelal xamal ko ne fii kat nii la woon a demee tafin la bi nii la lii lay baxaru bi ak baxaru bi lii lay bañ ko defee bu beneen yoone dootu ko defati voilà Dame Diané ñetti tey yi laa bëgg nga tàqaleel ma ko taalif taaxuraan taasu lenn lu nekk yëfi boppam la xëy na dañoo jege rek taalif waxoon naa ko léegi da ngay jubloo taalif teg ko ci ay norme mu jeexee ci ay baat yuy ñu loolu mooy taalif d'abord mu am xam-xam bu koy jàngale spécial ginnaaw boo amee mawhiba bi li ñuy wax fànnun wa mawhibun taaxuraan nag moom ay wax yu am njariñ lay doon ñu tegale ko waaye demul jëmul fenn. mais parfois ñu gis taalifkat yi jël euh, ay taaloo xam ne taaxuraan la woon ñu ngeen jëlaat kon. waaw taaxuraan mën naa dugg ci taalif ndax taalif yii ñuy taalifee ñun ñu ngi ko jëlee ci arab kon xëy na suñ mag ñi amoon nañ benn façon waxiin yoo xam ne xëy na ñoom lañ daan waxee xam ne dana tënk ay njariñ jox la ko joxin wu neex woo xam si dana mën a yóbbaale message bi kon taalif taalif la taaxuraan taaxuraan la taasu taasu la lenn lu nekk ak fa muy dem taasu ñu ngi ko xamee ca mband ma mais des fois des fois nga dégg ñu ne la kii kat seet borom mën na ko mu woy nangam ak nangam euh, jëmale ko ci euh, dégg seet ñuy ñuy ñuy xaxar seet wala ñuy topp seet ba di wax nangam mu am lu mu ca jëlee am nu mu ko tëggaatee. waaw loola dafa jël aw taasu wiin boo xoolee dana danaa wëlbati mbooleem wayin sooda ba zaaxir sa di baatin bu jar di seetaan kon zaaxir la woon ñu daal koy baatiniser waaw kon léegi mën nga jële ci euh, taasu indi ci taal waaw am na am na noonu ko sëñ Moussa ko defee defu ko ci benn dong mbër mu ndaw allaw le nga mbër mu ndaw allaw le nga am na loolu ca euh, ku doon bàkk am mbër la woon mm. ma faaxilun ma faaxalatun faaxilun ma faaxalatun noonu la demee def na ko ci ay baxru yu bëree bëri boo ñëwee ci suñu génération bi tamit da nga ci fekk ñoo xam ne si andi nañ yeneen yoo xam ne xëy na ñu ngi ko jëlee ci taasu wala ñu jëlee ko ci taaxuraan loolu mën naa nekk waaye taalif taalif la taaxuraan taaxuraan la taasu taasu la taalif ci diine la gën a jege taaxuraan ci aada la gën a jege taasu ca mën na ma la gën a macha allah mu nekk euh, lu am solo est-ce que tamit euh, li ñuy wax ci euh, léeg-léeg freestyle c'est-à-dire jox la benn baat ne la doxalal ak baat boobu est-ce que à tout moment bu ñu ko defee nit ki ki nga xam ne taalifkat la mën na mën na ci génn. non man moom loolu gars yi mën nañ ko bu baax a baax a baax waaye man man moom. <laughs> loolu lañuy ñuy tuddee jaal wala boog ñu koy wax jori ko. Hmm. nga jékki-jékki rek kii wax benn bayit bu daaneelee nga tontu ko ci benn bayit. Hmm. keneen tontu keneen tontu loolu am nañu ko man ñoo xam si ñu ci xeeran la ñu mel ni fàllukan fàllukan moom donc koy tuddee messi di son arabe <laughs> mooy messi bi quoi <laughs> waaw <laughs> dafa mën a woy man man nag moom mën na maa jël sama bi mbind mbind mu rafet bu bu ma bu ma noppee wax ko waxin wu leer nañ ñi te du yàgg waaye continuer di wax nii rek moom moom loolu moom gaa yi ko dàq téeméer jënd voilà est-ce que euh, yéen a ngi organiser ay compétition yoo xam ne peut-être da ngeen di euh, nàmm xelu ñi nga xam ne bëgg nañ taalif ak ñi nga xam ne dañu koy euh, bàyyi xel bu baax a baax waaw loolu am na kuréel goo xam ne si moo tënk taalifkat yi ñu koy tuddee Multaqa Shu'ara mu judd woon ci at ati 2013 yooyu euh, bi ñu demee ba 2016 tàmbali woon nañ benn jongante boo xam ne si ñu ko doon wax xalima wurus yaakaar naa ñett ba ñeenti at. kenn moo ko initié woon. man mi moom bokk naa ci ñi ko initié woon ñu taxawal ko. Euh, muy am ay yokkute yoo xam ne sii dañ koy dëppale ak màggal gi tamit foofu tamit mu nekk concours boo xam ne si concours bu am solo la ci thème yi nga xam ne si moom la ñuy wayloo ndax li doonoon jubluwaay bi mooy lii rek léeg-léeg mbir dana neex benn xeetu neexin woo xam ne si ñi koy dégg ñëpp dañuy daal di jóg soobu ca kenn ku nekk da nga koy boole na nga na sa jikko mel da nga ko ciy indiwaale ñii di ko fooye ñii di ko caaxaane ñii di ko def te mënuñu ko mënoon kenn ku nekk nga dem ca moom ne ko yàq nga fii wala yàq nga fii organiser benn concours boo xam ne si dafay tënk sart yi nga xam ne si mooy sarti taalif ku ci bëgg a bokk dañ naan la nii ak nii ak nii li ngay way faaw day tegu ci benn bax mu mel ni day euh, dégg wolof. Mhm. day wolofe day wolofe dañ ciy maye point ci wolof loolu mooy point dañ ciy maye mm, ci ci en mhm. dañ ci maye ci élégance maanaam ci elqa ni nga joxe woy wi mhm. ba gis mel ni nekkutoon loo xam ne lu yomb la daal nekkutoon lu yomb nga xam si li manqué woon ci way gaay yi mhm. moom la ñuy teg ne ku bëgg a bokk mhm. lii la ñuy ci la ñuy maye ay moom voilà mu mel ni euh, ku xeej ji nga ci mbir mi jot nga ci am ay diplôme xanaa <laughs> ay diplôme mhm. jot naa cee gagné benn concours boo xam ne xëy na Lamp Fall TV moo ko organisé woon bu dul daaw jéeg 2018 la sama juumul boobu tamit concours bu metti la woon boo xam si sëriñ bi lañ ci doon tagg ah, ba noppi borom xam-xam yi ko doon atte nekk ci haut niveau la mm-hmm. <laughs> nekk ci Moustapha bu kawe kawe kawe kawe waaw loolu waral concours bu metti waaye yàlla dogal na ñu génn ci ak jàmm ñu jël première ba. Mm-hmm. ñu ngi sant yàlla bu baax di ndokkeel ña ca bokkoon ñëpp. voilà wax nga ma léegi ne nga ma Fallou Kane moom messi la ci yëf yi. Euh, yow mu mel ni am na benn euh, yoon boo jël ci taalif parce que gis nañu nu euh, ren àndil nga nu kooru Baye Seex gis nañ tamit ci biir ay sponsor mën nga dikkaat ci loolu waa man moom sama yéene mooy bu ma ñëwee bu ma jafee li nga xam ne si moom la laa fekk ma indi lu bees ñëkkul ne kooru baay Seex rek xëy na mooy doog a génn waaye am na yeneen yu génnoon am na muy wax xibaari xalima xibaari xalima nga xam ne weekend maam ayu bis gu nekk dañu xool actualité yi gën a fes ci semaine bi xew-xew yi gën a fes ñu jël ko def ko lu mel ni journal man maa nekkoon présentateur bi nga xam ne eh, maay présenté journal bi yeneen gars yi ci des nekk ay reporter kenn ku nekk dama naa la bindal ma ci thème bi bu ñu présenté ko comme journal naka noonu am na yeneen xeetu wayin yoo xam ne si tamit amutoon ñu ñu indi ko mm-hmm. di way di ko monté di ko booleek ay ay ay ay jàng ak yeneen yi mbir léegi nag ak yeneen. loolu moo waral kooru Baye seex waaw hmm. léegi nag ci yokk te bis bi set rek. ci fexe yi mbir mi gën a taaru gën a yokk. moo tax ñu indi kooru Baye seex ren. kooru Baye Cheikh. waaw am nañ ci ay sponsor ay ñu ci dañ jàppale waaye sponsor yi gën a mag mooy askan wi. Hmm. ak ñi nga xam ne si ñooy soppe yi mhm. ñoom ñoom ñooy sponsor yi voilà gis nañ askan wi tamit askan wi ngay wax ñoom vraiment ni ñu euh, jotee euh, kooru Baye Cheikh ak mbégte biñ ci am loolu lan la lay def nga génne benn produit euh, mu leer la ne lii nit ñi bëgg nañ ko ñi ngi koy consommer waaw sant yàlla bu baax rek ak di leen gërëm ndax boo xoolee nit ki lim nga def ba mu bëgg la am na keneen xëy na kuy def lu ko pire te te te ko xëy na lu yàlla dogal la ci ñoom waaye loolu ñu ngi jëllaat mbégte moomu ak cant gi ak ngërëm gi ak kóolute googu noonu di leen ko delloowaat yaakaar naa ni def nañ ko ci épisode bu mujj bi sax nga xam si spécial cant la waaye ñu ngi leen sant bu baax ndax nit ñi wax dëgg yàlla mbir mi fi mu yegg fooguñu ko fa woon tax na daanaka fu ñu toll nit ñaa ngi woo téléphone di envoyé SMS dañu envoyé message. WhatsApp mais dégg naa yéen ku leen envoyé message du ngeen ko tontu <laughs> yéen dégg naa léegi succès bi quoi léegi da a siiw quoi. <laughs> <laughs> demeewul noonu de lool nit ñaa ngi koy wax bu baax a baax a baax waaye demeewul noonu waaye xam nga. bu fekkente ne tey jii kenn ku nekk ñi nekk ci Sénégal ñuy topp koor Baye Cheikh ñëpp mën bu fekkente ne kenn ku nekk envoyé na message nga tontu ko ca saasa loolu dana jafe. Mm-hmm. dana am message yoo xam si ba léegi yëggagoo ca waaye dañu xam ne nekk bëgg bu ëllëgee ñu jox leen loo xam ne si lu gën a neex koor Baye Cheikh la mm-hmm. di liggéey loolu rek moo ñu tënk mm-hmm. waaw seen mbégte moo ñu tënk mm-hmm. ba tax ñoom ñu waaye ñoom lépp ñoom daal ñoom ñoo ñu teg ñoo ñu def li ñu doon voilà lan mooy naal yi euh, yi nekk sa kanam ci wàllu euh, taalif ak euh, sa avenir incha allah naal yi nekk ci suñu kanam ak li ñu bëgg mooy taalif yegg fu nekk ci àddina nag laa waxuma biir Sénégal ci àddina rawatina ci wàllu média yu Sénégal yi ndax aw aw xeet boo bëggee wax ak ñoom da wax ak ñoom ca làkk wa ñu dégg nga ne dama ñu ne la ah ba noppi taalif dafa doon loo xam ne mën na yar askan wi mën na leen a gindi mën na leen a yee bàyyi seex ci misaal neex na am na am njàngale ba noppi nit ki day ciy jànge ak njàmbaar mm-hmm. bokkut beneen produit boo xam ne si xëy na yaafuus ak wax ju bon ak ak ak ak waye di rek lay jàngal nit ki kii da koy bàyyi si kenn ku nekk war na cee jàm jàngee njàmbaar gi mm-hmm. njàmbaar gi mm-hmm. njàmbaar gi surtout nga xam ne àddina mm-hmm. amul découragé da ngay wéyee rek di wéy loolu léegi na suñu naal mooy mboolem lu ñuy def ci télévision mënees na ko def ci taalif man loolu laa bëgg télévision boo ñuy def ci télévision rek mën nañ def ci taalif lépp lu ñuy def ci wax wesar nii mënees na ko def ci taalif ah man loolu laa loolu laa gëm loolu nag mooy sama mission loolu donc fii ak réussir guma ko moom defaguma li ma bëgg hmm. mooy télé télévision boo xam ne si hmm. du matin au soir 24 24 heures lépp taalif lay doon émission sax dañuy taalif émission yëpp taalif lay doon ah, loolu de laaj na <laughs> na fi hmm. koor bàyyi seex nekkul na maa bind yëpp ah, di bindu ma ñaar ñaar ñaar laa ci bindu ñaar yooyu li tax bindu ma ko mooy damaa bëgg boo liggéey ñu xam ne am na ñeneen ñu man ñoo xam ne si mën ñoo bind lii photographe bi fàllukan moo ko bind bi nga xam si dafa naafila ji woon ca jumaa ja ku ñu wax Saliou Touré moo gañe woon concours xalima rus bi moo bind ñaari bayti mm-hmm. man moom ubbite gi ak tëj gi rek laay def ngir gën koo mm-hmm. méngale ak ni affaire bi doxee def ci tuuti comédie def ci tuuti comédie voilà kon mu mel ni euh, laaj na comme yoon boobu nga xam ne jël ngeen ko ñu bëri fekk si leen ci ndax est-ce que tamit taalif mi ngi dundal ñi koy def ndax dafa mel ni métier la boo kii la boo xam ne passion bi moo ci ëpp maanaam bëgg-bëgg moo ci ëpp ci ëpp xaalis bi loolu ci métier yu bari la métier yëpp la rawatina métier nu ñuy wax aar daanaka njaalbeen gi day metti lool waaye xëy na buñ demee ba ca kanam dana neex mm, taalif moom mën a gut dundal nit euh, bëgg-bëgg lañ ciy demee xëy na buñ demee ba ca kanam ñun ñii liñ ci am mën naa am ña doon def bu njëkk amuñu ko ci liñ ci am liñ ci am ci teraangay àddina akus néew mën naa am ña ñu jiitu woon amuñu ko ci xëy na ñii bu ñu liggéeyee mais nit mën naa am programme am wala nga taalifal ko mu fay la waaw loolu la loolu bari na ci mm-hmm. loolu bari na ci ay concours yi ay cérémonie mm-hmm. ay cérémonie yi mm-hmm. ay ay ay màggal yooyu yëpp dan lay woo ni ñuy woowee jàngkat bi ne la damaa bëgg nga defal ma am marché ci sëñ diw boobaa lan la cay jox loolu teraanga la loolu loolu moom bari na moom taalifkat bu nekk xëy na maanaam ñi ko seen xam-xam man ak ñi ko mate ñi ko man ña nga cay ña nga cay dund yëkkati seen alal di leen ko jox ngir yàlla mm-hmm. waaw loolu lool lool la xëy na kon bu ñooñu mm-hmm. ñañu jiitu woon man naa am amuñu ko ci woon mm-hmm. ñii ñëw tamit mën naa am danañ ci fay ay sec. voilà danañ ci fay ay sec <laughs> am naa ñu ci euh, catul waxtaan bi man xam naa ne euh, du ma la taalif fay la dama lay taalif loo bañ génn su ma la waxoon 24 actu loo ma ciy wax. 24 <laughs> actu damay wax mm, jërul di ko corona. 24 la ak téeleer ñoo raw bawoor ci xereñ enquête ba jox la lu wér. Mhm. <laughs> am na solo am na solo vraiment loolu moom. waaw euh, jërul jërul di koj corona 24 la ak téeleer. ñoo mhm. rek ba ñoo raw bawoor ci xereñ enquête ba jox la lu wér. enquête ba jox la lu wér. <laughs> loolu moom waa ak actu ñoo ko moom euh, vraiment mu bàyyi la nga tàggoo mbégte la pour euh, dalal la lan ngay tàggoo xam naa ne euh, bégalee ko sa mbokk yi nga xam ne rek vraiment ñi ngi xaar baxru yi. waaw xam naa ci fànn yu bari moom la ñuy taalif. waaw danañ taalif ci mbëggeel danañ taalif ci social danañ taalif ci diine danañ taalif ci actualité ndax boo xoolee Baye Cheikh da nga ciy gis. actualité bi mi biir surtout corona da nga ciy gis tamit social. Mm-hmm. bi naka noonu tamit waykat yi am na ñoo xam si daan woy ci mbëggeel ngir gaa yi di ko neexalee seen seen kii yi daan woy tamit loo xam si dafay def jeexi ci diggante nit ki ak boroomam wala diggante nit taalibe bi ak sëriñam waaw ak ak martial aussi mm-hmm. surtout mm-hmm. yooyu yëpp dañ koy def ngir boo martialee nit xëy na dundal nga ko mm-hmm. ndax ay jikkoom dana fi des ku dégg martial bi man caa amee loo ca foree tuuti xam naa bii moom dañ koy def boo xam ne xëy na fii jamono toll ñu tawassul ci sëriñ bi mm-hmm. euh, ñaan ko mm-hmm. dama ne woon banque ak tawat gi nu dal war war yi wër nu fu ne diis nañ ko bàmba mi xëy tawat gi dal war war wër nu fu ne diis nañ ko bàmba mi xëy bàddi sëriñ mbegere xiinal tawal dajalal ruujal jiyal saxalal jéqil te góob jërijal nu jomb ngaa segere dépasse dugub njëgu ceeb addiya ak dimbale moo tënk xel yi fegal ni dëkk bi dëgëre raasaatu nan fu ne yëf fun fëgg foofa ne kekk tàbbil teral ñu ci sag suñ lépp ngiy sagare tiit ak rët ak jaxasoo bekkoor tawat yóbbu la ki tax sa doom yi di jooykaay war ko say degere yaa bar ci yitte ju far yaa bar ci man ci soxla ku ne kootin mu mucc ba am may yum jëgër jëgëree yuquulu wartinu ndax suñ njool mi doy nga ñu raas yaa jota xaras yaa jot fa kursi jota xaras ma ñuy sigiree yuqoolu wartinu ndax suñ njool mi doy nga ñu raas yaa jot sa kursi jota xaras ma ñuy sigiree ajjil ñu gam bi ngërëm duy sàq yeeg jiba yi naataange del si fi nun barkeb sëriñ Mbegere ajjil ñu gam bi ngërëm duy sàq yeeg jiba yi naataange dellu si fi ñun barkeef Serigne Mbegere allahumma salli lu am solo vraiment euh, def nga ko ci euh, tolluwaayu jamono ji xam naa loolu moom vraiment euh, lu am solo la tey loolu nga ñu àndil. da ngeen bëgg. <laughs> waaw dama dama bëggoon nga defal ma benn taarif rek benn ci xëy na sama xale yi nga xam ne dañoo toll ci bëgg bëggante rek xëy na ñu ñu mën koo bëggee rek loolu da am solo. <laughs> xam naa bii tamit dox ci wàllu mbëggeel mawdon bi mbëggeel la maanaam thème bi mbëggeel la. waaye am na ci biir loo xam ne si moom lañu bëgg a jàngale. boo dañ ko misaal ci ay picc. waaw picc ñu tënk ci ay picc yoo xam ne xëy na ba ñuy nekk ca tool ya. xamoon nañ ko ñu ñëw fii gisatuñ leen mm. ñu bëgg seeni tur des ci àddina mm-hmm. tax ñu tënk leen mm-hmm. melal leen nag ci melokaanu mbëggeel mm-hmm. jamono ji mbëggeel bi neex jamono ji mbëggeel gi neex mu yore melokaan picc mu rafet wala picc mu lewet jamono yi muy naqari mu yore melokaan picc mu ñaaw wala picc mu soxor crée nga mu ne mbëggeel a sóob ma ci gottub misère gu ànd aki tartar xiinam wa dotti ma waamew nameel gi sang fi say cër xalaat sa xal sama biir xol fulóor gu fees ak i car-car meloom wa dëkk ci soppeeku bis bu nekk ni kàktar léeg-léeg mu roos ba ma foog ni am rammatoo ne fi fër-fër mu dellu weex di ma gëmloo tóortóor a tàgg sa biir kër yii saa mu gel ni ki lool yeesaa mu naate ni ab dër yii saa mu werti ne ndam-ndam yeesaa meloom nuru bàqar léeg-léeg mu xëpp ma jàmm ak jubbam wu jekk wa ni per mbégtee ma soppiku sarwet saa góomu xol bi mu tak cor léeg-léeg mu tàyyi ni toq xëy am cawarte ni war-war yi ñu àndi di guutu tambaalu geewa ba fajar di sab di bàkku ni naatuk rajab gu mucc ci tartar léeg-léeg mu tàyyi ni toq xëy am cawarte ni war-war léeg-léeg mu dij ma ca naaj wa may jooy mu uf ma ci ron ker yi saa mu ràng ma caqoo xalaat yu sell ni gànjar yi mm-hmm. saa mu tënke ma coono saaxel mi yendu ci kër kër mm-hmm. léeg-léeg ma tàbbi ci firdaw seem di naan di sangu ci am njar di mbaane meew mu ñu raxalem sërxal ca soowa ki suukar muy ndaata taar di ma reetaan leer bu bañam ja di kàbbar ki tax ba jant di leeral waral jamaa kawe ab cër ku gis ko guddi du gumba wetaa wetu mbégi koy dar jubb musaa du ko gónni ngoob rekk lay nasali per ci man la barde du ay dóor ndëbin nga sab na ko muy bér saa tippi rippi mi gàcceel na putt ind ca xaysar sawtu safi du ma yëngal baatub daawut la pitax mu taaru mi naawal ci jaww wi kaw kabu azhar saa ngale saa picc palpal fu mu tàgg teggi fa njàqar mooy tëgg xel mi di wëndeel turam mooy la xel bi di zikkar fan laa jëm ak jox mbëggeel naanam nga yokk na saamar mbëggeel a takku te sakkan ku bëgg nit na ko waggar cofeel gu dëgg du yomb ku bëgg kat da nga bég mer I love you sama tàngal jinjeer bi faj li ma càqar sa mbégte mooy sama bànneex sa mer ma doon sama naqar mbëggee la sóob ma ci gottu misère gu ànd ak i tartar mbëggee la sóob ma ci gottu misère gu ànd ak i tartar macha allah am na solo am na solo loolu moom xam naa ne baatu wurus yooyu euh, jigéen ñi nga xam ne ñooy bëggante wala ñi nga xam ne sax ñooy bëggante man la ñuy fay ndax man maa leen may occasion boobu <laughs> pour ñu mën a am vraiment ñi ngi lay sant baax di la gërëm ma bàyyi la nga tàggoog ñi lay euh, seetaan ci 24 actu waaw ñu ngi lay sant bu baax euh, di la gërëm di gërëm mboolem waa rédaction bi di leen sant bu baax di am mbégte bu baax ci seen liggéey ak di ko rafetlu yàlla na suñu borom dolli leen jàmm ak tawféex di sant mboolem soppe yi ñi nga xam ne si ñoo ngi doon safoo mm-hmm. ñi safoo suñ jëmm ji xeebu ji waaye ñi ko jaarale ci kooru Baye Seex ak li nga xam ne moom la ñu tagg ci Serigne Touba ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen jégalu bu baax ci xaw mel ni gu ñu xaw a mel ni ñu jafe ci yéen waaye nekk ci liggéey bi rek am yéene indil leen lu gën a neex lu gën a wóor lu gën a piir kooru Baye seex incha allah dana am balaa yàgg rek bu ñu noppaloo rek xeqi rek dana ñëw di leen jox di daje incha allah ci yeneen i jamono wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf euh, ñi ngi koy sant baax euh, di ko gërëm mu nekkoon tey euh, sunu gan l'invité de la rédaction nekk Dame Diané talent ndaw boo xam ne ràññee nañ ko lool vraiment euh, ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def ci fànn googee nga xam ne moom lay yëngu muy taalif ràññeeku ci lool euh, donc l'invité de la rédaction nag bàyyiwul kenn képp koo xam ne itam euh, amal nga nit ñi njëriñ ci fànn gu mën di doon itam danañ la fi invité nga toog ñu waxtaan ak yow ci li ngay yëngu ñi ngi koy sant baax ci ko gërëm ci oyof gi nga xam ne am na ko ba wuyu suñu fii ci 24actu.com ñi ngi sant bu baax ka gërëm Modou Diouf mi nekkoon ci caméra bi gërëm ki xam ne rek moo di daaw Daouda moom itam jàpp jàppoon ci geneen wàll gi euh, Cheikh Gueye ci montage bi euh, ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di leen jox daje incha allah magget ci assistance bi incha allah beneen yoon incha allah ci l'invité de la rédaction ak yeneen i gan jërë ngeen jëf.